bon suis gërëm ñëpp d'abord et sant yàlla eh, di du di de e eh, département Saraya à part le chef-lieu de département courant amul donc loolu ci insécurité du donc moi moo tax euh, ñun commune hésité wuñu faire une contribution pour régler le problème euh, courant parce que day régler lu lu Il foofu nee nañ sécurité bi insécurité bi am na foofu euh, yeneen un yi doxu doxuñu foofu à cause du manque de courant suñu doom yi aussi wala structure sanitaire yi dañoo manqué courant ba tax na guddi dañuy am problème pour faj euh, nit ñi donc loolu courant bi en tout cas ñun dañ ko rafetlu te dañ ko yàkkamti aussi parce que lu bëri lay faj ci ñu donc ci wàllu emploi day réglé lu bëri bu ñuy bu ñuy defar courant aussi dafa laaj beneen beneen beneen taxawaay encore mooy sensibiliser population bi xamal leen danger courant donc ci walu boobu ñun dinañ ci taxaw pour vraiment sensibiliser suñu population yi ñu gën a góorgóorlu parce que courant aussi dafa am ay effet néfaste yoo xamante ne bu ñu sàggane dina dina dina ñu gàllankoor